دعوا الحمد لله رب العالمين الحمد لله دائما وبدا الحمد لله كثيرا الحمdu lillah ala kulli haalin di sant yàlla sant bu amul app amul day waa di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak saxaabaam yi ak képp koo xam ne yaa ngi topp si sunnaam bi ba ilaa yawmil qiyaama di ñaan yàlla ñu yàlla boole si ñoom yàlla ñu xëy jaama indoo ko fanaanoo ko yàlla mi jaama yàlla defal jaama yokk ñu sutura yokk ñu kaata ñi feebar nekk ci kër nekk ci lopitaan bi waaye fu waaye nekk di jaama yàlla mi saafara yàlla ñu yàlla boole may aafiya yàlla ñu yàlla may aafiya yàlla may aafiya may ko mboolem doomi adama si kaw suuf waaye julliti jutu àllaxira yàlla yërëm leen yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rawdatu min riyaadil janna ndaw yàlla sàmm leen aar leen laxaleen fi yaayagut warsaga leen xam-xam warsaga leen liggéey warsaga leen àndandoor yu baax jigéen yàlla sàmm leen yàlla boole ñu defal ñu xéewali àddina xéewali àllaxira mu safara amin mbokk julli ñaa fi si daaray muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat bu ma boobu ba ñu continuer si siirati nabi sallallahu alayhi wa sallam eh, yonent bi alayhi salaam nga xam ne si mujjanteeli fanami si àdduna denkaaneem doon denkaane boppam nga xam ne waajaloon na boppam comme ba mu waxee ne eh, joxee ne Seydina Ali ak eh, Fudayl bun Abbas wa Usama ñii la santoon ne ñoo koy sanga bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour wane ne kullu nafsin zaikatul mawt bakken bu mos dunda rek di nga mos dee mbokk julliti sallallahu alayhi nga xam ne moom rek moo am loolu keneen du ko am moom rek la malakul mawtu ñëw nuyu ko ne ko mu ne ko da ñëw pour eh, ziyaare si ma wala da nga ñëw pour jël suma ruu mu ne ko suma dama ñëw ziyaare si jël si jël si sa ruu waaye si sa ndigal moom rek la malakul mawtu laaj ndigalam moom salaa sallam waaye ku paase salaa ku nekk si ñun rek malakul mawti amul dara lu moo dafa yow xanaa waxtu bu jot du manqué benn minit te du tardé benn minute su waxtu bi di jot rek ah kañ ñëw na jël sa ruux imma mu nekk ruux min arwaxil janna bokk yi nga xam ne seen ruux yàlla daf koy def mu nekk si ruuxi àddina yàlla ñu ko yàlla defal wala mu nekk ruux yi nga xam ne yàlla daf leen ay mbugal yàlla ñu yàlla musal si ruux yooyu bon mbokk jullit yi sallallahu alayhi wa sallam bi malikul mawtu ñëwee mu ne ko fa jaa malakul mawt fa qaala assalaamu alayka ya rasulallah mu ne ko wa alayka salaam moom yonent bi alayhi salaam dal di ko fay mu laaj ko li nga xam ne mooy tànkaam mu wone ne dafa ñëw pour jël si ruuxam bi moom sallallahu alayhi mu ne ko ayna tarakta jibril ya ya ya malakul maut fa qaal taraktuhu fi samaai dunia wal malaikatu yaizunahu mu ne ko yunus sallam dal di laaj ne ko foo bàyyi suma xarit di jibril alayhi salatu wassalam mu ne ko maa ngi jibril ci asamané aduna moy asaman bi nga xamné ñun ci lañ nekk muné mang fa baye jibril ndeysaan malaaka yang ngi jalé kan lañ koo jalé sallallahu alayhi wasallam sallam because xamoon nañ ne la ثم حبط الجبريل عليه الصلاة والسلام وجلس عند رأسه فقال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الأمر قد قرب فقال بلى يا رسول الله mu ne si la jibril dal di wacha ne ko ndax xamuloo ne mbir yi jegeñ sina na mu ne ko ah mom yunus sallam mo jibril ne ko ndax xamuloo yëguloo ne ah suma waxtu dem jegeñ sina jibril dal di ko tontu ne ah yegna ko de xam si dara ndeysaan sallallahu alaihi wasallam sallam juliti lolu nak ki xamene moy anas ibnu malik radiallahu taala anhu nga xam ne liggéeyal na yonent bi alayhi salaatu wasalaam fukki at mu ne yonent bi musu anas lu tax nga def lii anas lu tax defuloo lii subhanallah subhanallah maanaam anas yonent bi salaam daf ko bàyyi woon muy liggéeyee coobareem waaye mu xamoon na liggéeyam te xamoon li mu doon def waaw tey ku am ku lay liggéeyal sa biir kër wallahi di ko gudnayi dega ay wahyu ñaaw léegi leg ay saga sax ci suñu jamono ji lu nga def li lu nga def lo so def li nala daha nala nangam waaye diidit yonent bi alayhi anas moy netali de mu ne fukki at lota anas bokkan ci si yi nga xam ño gina bare ay hadis yu jele ci yonent bi alayhi salatu salaam waaw moom bokk si nga xam so amé abu hurayra nga am ki nga xam moy ibnu eh, eh, kiñ see tegati bu de bu nekk ñenenteel ba na nekk juróomeel ba kan la mooy doon muy anas radiallahu taala anhu moom mooy nettali yonte bi alei salatu wasalaam si ban weer la malakul mawtu ñëwoon pour jël ruham bi si weer bi la si ban fan nañ déglu waxi ki nga xam ne anas radiallahu taala anhu mu ne ma raaytu yowman kaana aqbah ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر مي بس بو نهار بس تيس بو مغا مغا مغا مغا مغا مغا بو حميني جولي تدي موسى أم تيس بو كو كنا ميتي ديكو موسى أم بي يالا دو توكي بي موسى أم تيس بو كنا ميتي تيس بو بو نوتا أناسنة مونا جيسو بن بس بو كنا metti wala gënaa lëndëm bés bi nga xam ne si la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna mbokk jullit yi ñu ñëpp nañ jàppane ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi fekkee jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ñëpp ñu bokk si saxaaba yi nga xam ne ñu àndoon ak moom ñoo ko gëmoon gis mbugeel bu nekkoon diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi cofeel bi nekkoon diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi yërmaande bi nekkoon diggante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la bëggeewoon ummaam bi muy xeetam bi mooy ñu ñi nga xam ne fekkewuñ jamono jamonoom te waxtu bu nekk rek daf ñu doon sóoraale moom sallallahu alayhi wasallam xam ne waxam yëpp mooy lan ummati suma xeet suma xeet ñu war ñu koo tàgge si bés kooku ñu war ñu koo tàgge ne kii mu ngi dem uyu ji boromam ñu laajte nag ban bés la woon ak kañ la woon mata tuufiya nabi salaa sallam tontu bi nag tuufiya bil madina yéen bi alei salatu wasalaam si madinatu madinatu munawwara fa la génne àdduna mooy daaru hijra mooy eh, kër gi nga xam ne fa la gaadaayoon muy muy nekk tuuti ñu ngi ko taybatu tayba macha allah bari na ay tur madinatu munawara muy daaru hijra fa la sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna fan la ganee àdduna maaka génnee àdduna fan madinatu munawara ban bés la ban bés la sallallahu alayhi wa sallam génne àdduna يوم الاثنين bos بيمجدوا سبان وير ثاني عشرة من ربيع الأول سنة الإحدى عشرة من الهجرة si fukki fan ak si weer biñ nekk nii si la salaa sallam génnoon àdduna allahu akbar ndax weer boobu dañ ko war a dañ si war a yëg naxar la boo ay bànneex moo ci war a nekk su fekkee ne ñun ñëpp dañoo oote soppal na bi buggan ñu seet nag bési génn àddunaam ak bési juddoom nekk benn si benn loolu su fekkee am na ñun ban lañ si war a def lan la si war a def mbokki jullit yi mu ne yowmul isnain saani achara min rabi awal si bi nekk nii salatul hijja si bi gannaaw gàddaayam bi fukki ak benn gannaaw ba mu si la loolu xew moom sallallahu alayhi wa bon mbokki jullit yi fii rek dañ fi war a taxaw ñu seet lan lañ war a def bés boobu Muhammad sallallahu salam Wasallam sallam wana sila gana gane aduna te ligana gën a bari si riwaaya yépp day na si bis boobu la génn àdduna bon nag suñ bugga yonte bi alayhi salaatu wasalaam ndax comme ni ko anas wahai amu ben bés bu gënoon a lendem waaye amu ben bés biñ gënoon a am nahar sahaba yi ñi lu ñi lagi ngi muuma mënuñoo wax ñi leen ngi ñàkk nañ ko xam ne moo ku yàlla bi la si kaw suuf sallallahu alayhi wa sallam kon bési naxar la kon mbokk jullit yi lii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xam ne mooy mujjanteeli fanam yi la doon wax assalaatu assalaatu assalaatu wa maa malakat aymaanukum ey maa leen ay dénku julli julli juli ak képp ku nekk sa ron bon salaa sallam motale na diine bi mot na gannaaw bi mu nag yàlla subhanahu wa taala ko jël mu dem uyu ji boromam si loo xam ne moom la borom xam-xam bi la xewoon si fan bi nga xam ne si la juddu woon si fan boobu la xewoon bon loolu naxar bu réer réer yi boo xam ne tukki ñun julité duñ mësa am naxar bu ko mel koy ko mësa am mukk abadan abadan duñ ko mësa am mukk sallallahu alaihi wasallam ko xamel mo ñu gënal suñ njaboot gënal suñ ak gënal suñ wajur lepp luñ am ci kaw suuf yent bi alayhi wasallam mo ñu ko gënal bon yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne nañ toppa sunna bi waaye yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamne kéro yomal qiyamah nañ bokk si ñuy dégg alquran bi ñoo jàng eh, arjana te kii ren rek a fay jàng alquran muy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom rek la ñoo dégg foofu baatam yàlla ñu yàlla boole si nga xam baatam foofu si arjana allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil